concours yaatal mbindum alxuraan mi nga xam ni euh, c 3 di compagnie Serigne Seck Sénégal daf koy amal at bu jot ren ji nag di atub 2020 moo dëppoo ak ñetteelu bi yoon di troisième édition bi ñu daal di ko nag jagleel waa jaamaal yëpp ku ne jaamaal xam ne dëkkub cosaan la nekk ci diwaanub Saloum région de Kaolack fii ci Sénégal jaamaal dafa bokk ci dëkk yi nga xam ne dafa sosoo ci njàngum alxuraan mbindum alxuraan alquran ak di ko jàngale tàggatu ci diine di sukkandiku ci xam-xam di ko digle di ko jëfee ak di ko xamle. ok ñu ngi leen nuyu ak fu ngeen mun a nekk yéen ñi nga xam ne yéen a doon organise concours bi nga xam ne dañ koo def ngir jiitu xante ci kan moo gën a rafet ak kan moo gën a wétle eh, mbindunu kaamil yàlla def nag ngeen am ci teraanga ju rëy ju toll ni seet genn kilifa ci réew mi ngeen tuddee ko ko ngeen jël cër ba moomale ko jaamali yépp kuñ ko fa jox rek baax na waaye yéen sedd ngeen ko jaamal yépp seen woote ba bi mu agsee jaamal jaat ci xalifa général de jaamal alaaji Mouhamad Lamine Cissé doomu alaaji Babu Morit Cissé nga xam ne bis ndiki tey moo xalifa général de jaamal ñu waxtaanee ñim ko bokkan ñépp ñeneen ñi ko xeeyoo ci dëkk bi bari nañ waaye jox nañ ko alajan li faatu mi nga xam ne seen maam borom jaamal alaji Abdoulaye Cissé moom la jiit loon ci jàngu bi te bi mu bàyyi ko ba léegi itam njabootam ngi liñ ci man ñu ngi ko ciy def njàngale nañ ñu ngi taxawu njàngale mi itam kon dañ leen ay gërëm sant leen ci ràññale gi ngeen ko ràññale eh, gi ngeen jaamal del da ba ca xalifa général de jaaman alaaj Mouhamad Lamine Cissé doomu alaaj ba ma réetoo gërëm ko bu baax ci ràññali gi mu cër bi ni seet nda ko alaajaan di faatu foofee la borom jaamaal tegoon tànkam leerub daara jooje mu meññ di dëkkub jaamal tey jur na ay daara yu bari bari cim réew mi ak ci ay borom mi xam-xam loolee di rogaat ba ci njaboot gi tey yéen a ngi woote nag loo ne loo am am hitteel la de mooy bind alquran ndax ràññale nañ xàmme nañ ñun ñëpp ne mag ñi bu ñu waxaan diw mokkal na alquran liñ ci jubloo moo ne mën na koy tëri tërihin bu rafet mën na koo bind te du ko gis bu ko keneen bindee itam bu ci yàq nekkee dana ko mën a dindi loolu lañ daan tuddee mokkal alquran waaye jamono jii nag yàkkat di mu yàkkamti moo indi beneen mokkalin alxuraan boo xam ne bii nii da nga koy mokkal ci lu gaaw man koo tëri waaye doo ko mën a bind loolu nag ñun ñii ñoo ko gis muy ak mat waaye njëkk ñi ñoom gisuñ ko woon muy ak mat ñoom balaa kàng daan doon kàng dafa bind alxuraan dafa dafa tëri alxuraan bind alxuraan mu rafet te wét keneen bind alxuraan jox ko ne ko wétalal ma ko mu man koy wétalal kon bu ngeen demee ba loolu jamono mel ni da koo bëgg a fàtte ngeen bëgg ni ñu delsi ci ba mu jaral leen ngeen de ngeen di ci def concours di kan moo tax ka bind itam kan moo xam ne kii nii moo gën a rafet mbind eh, boobu boobu yéen a ngi bëgg a dekkal lu rëy rëy loo xam ne réew mi yëpp am nañ soxla ci mu dekki ndax mbind mu ngi bëgg a daay ki mbindkat mooy cosaanu xam-xam mbind mu rafet mu ngi bëgg a néew te taar la woon alxuraan yu wet yoo xam ne jine da nga koy tëri doo gat da koy bind doo yàq moo doon alxuraan dëgg dëgg dëgg dëgg te wax dëgg mu ngi bëgg a néew ci suñ jëf jamono ji troisième édition concours yaatal mbindum alxuraan mi nga xam ni C3S daf koy taxawee at bu jot gannaaw ba mu ko cërale waa jaamaal yépp dafa dellu si tuddee ko jëmm joo xam ne dundam yépp dafa ko def ci njàngaleb mbind mi ak jàngaleb alxuraan ci xam-xam yi mu làmboo yépp yi ngeen tuddee mbir mi itam te mooy alajaan yi faatu loolu ci la def dundam jàngale alxuraan ci mokkal jàngale alxuraan ci xeete jàngale alxuraan ci jàngale mbind jàngale alxuraan ci jàngale itam xam-xam bi ñuy wax rasmu ak dabt te mooy xam-xam bi nga xam ne bi day waxaat ne ndif gi fii lañ war a jaar ak moom waaw fii lañ war a jaar moom yaag yi fii lañ war a jaar moom nga da ko jàngale ba koo jàngal mu xam ko lu bëri la ci def ci dundam loolu lu bëri itam def na ko ci bind kaamel ak bind lu kaamel kaamel yooyu fo foo xam ne fii nii daara ju ràññeeku la ci réew mi rawatina Saalum wala Kaj wala Mbaakool jëlee na fa kaamel bu ràññeeku indi boole ko ci daara ji suñ leen gërëmee yéen ñi nga xam ne ñii nii yéen a jog de ko organise ndax bëgg a dekkal démb du démb njëriñ mu ngi ci woon dañ gërëmaate dam ñi nga xam ne ñoom la wax C trois S yàlla bu ci dara ñaaw te dara du ci ñaaw itam waaye nag li ci defal li ci defal di yëpp yéen a bokk am ci ndam kon dañ leen ay boole yéen ñëpp gërëm leen sant leen waaye itam nag dañ gërëm képp koo xam ne eh, wuyu na leen ba bind kaamil indi leen kaamil ba bu fekkente ne yàlla def na moo di ki raw ngën la day jéggi dayoo ka ci topp itam ngën maan lay jéggi dayoo waaye bu fekkente ne ki indi kaamil moo des gannaaw itam ñun du tee dañ ko gërëm ndax ku xalaat bind kaamil jàpp ne soo ko sémbee dana sotti eh, buñ ko wootee itam sañ nga koy yóbbu xalaat boobu rek rek rek war nañ la gën a war nañ ciy sant. mbokk yi concours yaatal mbindum alxuraan mi C3S compagnie Serigne Seck Sénégal at bu jot ci lii rek lay dox te du ci mës a jóge mooy sàmm daara ak ñooñ mooy sàmm alxuraan ba jàngum alxuraan ak mbindum alxuraan di gën a yaatu ci réew mi ak di law ba faw yàlla na leen yàlla subhanahu wa taala fayal. ndokkeel itam ci bés bu tedd bi ak it ci pàkk bu tedd bi nga xamee ni taalub jàngo bu mag la ci réew mi nga xam ni lu bari ci nit yàlla yi jaar nañu fi kon ñu ngi leen di ndokkeel ci bis bi waaye itam di leen ndokkeel itam ci pàkk bi waaye nuyu ak ziar yëpp nag ñu koy def ci turu alxaaji Serigne Seck nga xam ne mooy njiitul C3S te itam mooy kër gi initié concours mag bi nga xam ne mooy concours yaatal mbindum alxuraan nga xam ni boo gisee tànk yi loolu yi ko waral C3S day këru liggéeyukaay goo xam ni ba mu sosoo ba léegi euh, musa dañ rek taxaw ci yitey askan wi. alaaj sëriñ day def at mu jot euh, concours bi wala cérémonie ba day seet jàmbaar ju ràññi ko lool ci liggéey alxuraan mu jagleel ko ko. at mu njëkk moom mu jagleeloon ko sëñ euh, moo Amar Ma Cissé ca ca Njaareem ku xam ne ab taxawaayam ci alxuraan daaw mu jagleel ko sëñ Jëmba Xari Cissé moo tamit ku ni xam ne ko ci bind ak taxawaayam ci daara ren nag mu wax ni jaamal moom la koy jagleele. nga xam ni mooy pare bis ba loolu nag jublu ci rek feeñu daal liggéeyu mag ña ak coono ba dayoon ci alxuraan loolu lépp suñ borom eh, feeñalaat seenub liggéey. kon El Hadj Serigne Seck ñu ngi koy félicité bu baax ci taxawaayam ci Sénégal di ko félicité bu baax ci taxawaayam ci alxuraan di ko félicité bu baax ci Sénégal ci social yéen ñii nga xam ne nag yéen la tànn wóolu leen yónni leen. ñu ngi leen da jox seen wàccuwaay. fii ngeen dikk nag ci jaamal daara ku ko wax senegal ci tuddoo jaamal daara ja des na ndax it sëriñ jaamal lam jàngewoon sa maam Mor Anta ba léegi muy jàng alxuraan jàng fiq jàng lépp loo xam ne mbir diina la ak jàng li nga xam ne mooy tax xam araf ak jàng li nga xam ne mooy tax xam wéy loolu rek moo nekk jaamal ba bi dara sàncuwut 1910 ba léegi daar yi fi nekk dara sàncuuti ci ñu war ko daxal ba da ko jàngee nañ ko daan jàngee bu quatre heures ñu ñu jàng nañ ko daan jàngee loolee fukki daara yi juróom yi nga xam ne moo ne jaamal te président bi toog nii loolu ba tey dara sàncuuti kon sëriñ moom fi mu jublu fala yàlla mi nga xam ne moo ko jàppale yàlla na ko yàlla jàppale nag te xam ne yàlla ku ko lëggeel yàlla lay fay surtout alxuraan sa way juri moom di ko dund loolee bon cëri ba nga ma ko waxee dama ne yéen a ko yéen lañ ko jox ngeen nangul ñoo ko mu rafet bon sëriñ bu ngeen demee ngeen waxoon ne ko loolu la ñun waa jaamal yi ànd nañ ci bindi alxuraan ko fa dem sëñ ni ku mel ni sëriñ nag moom mi nga xam ne ndimbalam dafa fees ci Sénégal yëpp di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla may ay moyen ni moyen ni ni ay milliar yu milliards mu jox ko alxuraan